Profito occasion bi di ndokel ñepp di ñaan yalla mu nangul ñu jaamu yi wor yek julli yek nafile yek ñaan yek saraxa yek lepp ñong koy ñaan mu nangul ñuko su ko nañu tawat bi xamni ni ñu jaaxal te mom jaaxalu ko yàlla fi jëlé te yalla buñ ko gisati kon koor gu melni ni koor gi ñu dundu ren yalla buñ ko dundati yal na ko yëkkati ci aduna bi yépp ñu ngi waxtaan ak mbokk yi ci weeru ramadan shahrul mubarak weru wi nga xamanteni mo gën ci weer yépp parce que lo gis rek da am lu ci gën bës yi am na bu ci gën waxtu yi am na waxtu wu ci gën waye weer yi am na wu ci gën moy weer wi ñu nekk moy shahru ramadaanil mubarak weru wo xamanteni guddi gi gën ci la nekk weer wi nga xamante ni téere yi bi gën ci téere bu yàlla mës wàcc ci la wàcce waaye mooy weer woo xamante ni weeru ful jëf la kon nañ ciy profitoo bu baax a baax a baax bépp doomu aadama jëf jum jëf yàlla ful ko waaye ci weer wi kon la ful gi di gën a yokkoo moo tax lépp lu ñuy def rekk ci lu baax nan ko yokk ndax saydatuna Aïcha radiyallahu anha day wax ni yonent bi dafa tabe woon a tabe waaye nee na rawatina ci weeru koor kon jëf yu baax yi yépp dañ koy ful waaye rawatina ci weeru koor su ko defee ñuy waxtaan ci ngëneelu weeru koor ak leson yiñ ci mën a tiire ba mu jariñ ñu ba koor gele di ñewat yal nañ fi baye ak jamm ndax julli Fek julli yi day effacer yu ndaw yi fek borom deful bakar, bu mag bakar yu ndaw yim ci def yépp da koy fase da koy effacer mot ak digënte weeru koor ak koor kon weeru koor gi ñu wooroon daaw bu ñu ko yàlla nangulee lépp lu ñu ci def ci ay tooñ tooñ yu ndaw yoo xamante ni ay rëcc rëcc la suñu rëcc rëcc la loo xam ne du ay tay tay du yu ñuy tudde ay kabaa'ir lu mel ni njaaloo lu mel ni jëw lu mel ni yàq gor loolu yépp bu dul loolu rekk ay rëcc rëcc yu ndaw yiñ ci defoon yàlla daf ñu koy baal kon yàlla nañu ko baal te nangul ñu suñu koor te bàyyiwaat ñu fi ba déwén weeru koor nag pour wax ci day yomb ndax dafa bari ay ngeenel yu ci ñew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ni as-sawmu junnatun junna moy wiqaya wiqaya moy arange dalay ar dalay pek day téré nga tabbi safara kon koor go xamanteni yalla yàlla ko boromam du dem safara lolu moy firika ni benn ci aljana kenn du fa dugg lu dul woorkat yi bunt bu ñuy tuddee rayaan ndax asaw mu junnatoon koor gu ñu nangoo yonent bi day wax ni iza saamal abdu ramadaan imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taxaddama min zanbihi wa ma taaxar képp koo xamante ni woo nga weeru koor weeru koor nag du xiif ak mar déedéet weeru koor dafa am noo ko war a taxawee buñ ne woor woor mooy bàyyi lekk mooy bàyyi naan waaye looloo gën a tuuti ci koor dafa am leneen lu muy àndal mooy téye say cër ci lépp loo xamante ni dafa araam maanaam lépp loo xamante ni araam na sax moom musuta dagan ci benn waxtu déedéet waaye koor daf cee rawati képp koo xamante ni dangaa woor te mënoo téye sa làmmiñ ci jëw képp koo xamante ni danga woor te tey mënoo téye sa tànk ci dem foo xamante ni du euh, yàlla gërëmu ko fépp képp koo xamante ni danga woor te mënoo téye sa loxo ci loo xamante ni dafa araam ak lépp lu mën mënti doon muy muy muy muy muy muy jël muy muy muy jël sa loxo yi di ci dóore muy def leneen ak leneen ak lépp loo xamante ni rek ah, daganul foo boo boobaa loolu duñ ko tuddee woor loolu xiif ak mar lay tudd moo tax yonent bi ne ne képp koo xamante ne dangaa wóor chahru ramadan imaanan waxtisaaban imaanan mooy nga gëm yàlla gëm yàlla gi nag ci xool lay nekk ixtisaaban mooy ci ay ixtisaaban ci ay cër lay nekk maanaam li ngay def lépp yàlla rek moo tax bu doon keneen ku dul woon yàlla doo ko def kon bu boobaa nee na gufira lahu ma taqaddama min danbihi lépp loo xamante ni jotoon na weesu ci say bàkkaar jéggal nañ la ko kon wéru koor budul won woon bu amul woon benn njariñ budul bi njariñ rek kon doyon na kon wéru koor ay njariñam du jeex dalay moy lo xamanteni de wér wo xamanteni boko woré nga tabbi aljanna ndax comme ni ñu ko yonenti bi diggé koor amna buntu bo xamanteni ci aljanna benn buntu la mu rayan wor kat di rek ñoo cey duggu te aussi kor, dafa am ay jangat yuñ ci mëna jang lu bari jang yoy nak mën nan ko tass ci ñett benn bi mun nañ ko tuddé durus aw fawaid badaniya benen bi fawaid ruhiya benen bi ñu tuddé ko fawaid euh, euh, sihhiya ñett yo xamanté am na xamni xam fan bo ni la tuddu Euh, socialement am na lu ñu mën a retirer ci koor spirituellement am na lu ñu mën a retirer ci koor mais sanitairement am na lu ñu moo xamante ni mën nañ ko jànge ci koor maanaam société bi suñu wàllu dundin suñu wàllu dëkkuwaay suñu wàllu jëflante ak suñuy moroom ak mbindeefu yàlla yi loolu woor dañu ciy jariñ bu baax a baax a baax waaye tamit suñu côté yaram suñu côté wér-gi-yaram santé foofu tamit wóor am na loo xamante ni daf koy def foofu garab du ko def ab docteur du ko def ci yaram ñetteel bi mooy spirituellement maanaam suñu wàllu ruux koor day yar ruux koor day tàggat ruux koor day namm ruux ci jaamu yàlla ci bëgg yàlla ci topp yàlla kon ñett yooyu la tënk pour waxtaan foofu ndax koor lu yaatu la maanaam ku nekk mën nga caa xuus géej la koor nan la ñuy ci retire ay leçons socialement bokk na ci euh, boo wooree ba ngoon di nga xam ni yàlla rek mooy yàlla te yow ñëpp a yam maanaam foofu dinañ xam ni amul tabaxat ijtimaiya yu wuute comme Bayla alayhi salaam ni mu ko indee maanaam ñëpp benn la ñu doon yàlla moo digle woor yow loo bari le bari le bari la yoral ay milliards. yow ki nga xam keneen ki nga xamante ni mu ngi woor ci sa wet amul tàndarma bu mu dogee yéen ñaara yem kenn sañu ta lekk donte yaa ngi denc ci ay magasin sañoo ci lekk yaa ki nga xamante ni bu wooreet amul tàndarma bu mu dogoo yéen a yem rek foofu kon foofu day andiwaat ni ka ñëpp ñoo yem amaamallah ci kanamu yàlla amul kenn koo xamante ne rëy nga garaat wala ëppale nga keneen ci euh, ci yàlla kon foofu ba léegi dañuy andil euh, li nga xamante ni moom la bàyyi laay jàngale ci ko tey yemale maanaam kenn gënut kenn bi taqwallah maanaam ab gënul kenn koo xamante ni nit nga kenn gënul kenn lu dul ci ragal yàlla kon foofu dañ koor daf ñuy jàngal ni ñun ñëpp yem beneen jàngale bi ci wàllu social ba léegi daf ñuy jàngale ñu dimbalante jàngale ñu dimbalante mooy ku nekk jéem a dimbali ka nga tane doonte nag dimbalante dafa war ci bépp jamono waaye dafa gën a rawati ci koor yaay Aïcha li mu wax léegi ni yonente bi dafa tabe woon waaye rawatina ci weeru koor da daan gën di joxe kon joxe bi dañ ko gën a sàkku ci weeru koor doonte sax benn tàndarma la boo xamante ni da nga koy jox sa mbokkum jullit mu ndogoo ko loolu lu rëy ca yàlla la kon foofu tamit ci wàllu social kon bu koor gi jeexeet war nañoo jàng ci loolu ni ñun ñëpp yam benn waaye tamit aussi war nañuy dimbala dimbalante dimbalante suñu mbokkum jullit ci bépp wàll woo xamante ni soxla nañ ko muy ay lu muy jëfandikoo ci këram muy ba ci ay conseil yoo xamante ni soxla na ko loolu àq la ci bépp jullit mu jox ko beneen mbokkum jullit te loolu koor daf ñu koy jàngal parce que ku nekk gis nga léegi surtout suñu mbokk jigéen ñi yàq yaa ngi daw fii nangam nangam waaye yal na fekk ñu jox ko ñi ko yelloo nan koy jox ñi ko yelloo yàq bu mu jéggee ti ganwaay nañuy jël li ñi koy yelloo ñu leen koy jox te bañ koo jox ñeneen fekk koo xam ni am na ba guujal li mu togg reer mënu koo lekk da koy tuuri wala daf koy denc ci frigoom nga yàqati jox ko ay ginaar te romb koo xamante ni soxla na ko loolu nan ci taxaw mbokku jigéen yi ñëpp nan ci bàyyi xel suukaru koor yi ñuy joxeet mbokku jigéen yi nan bàyyi foofu xel am na ñu ko soxla mooy ñi nga xamante ni bu ñu wooree ba ngoon amuñu lu ñu suukaree am na ñoo nga jël ay paquetu suukar romb koo xam ni bu ngoonee amut lu mu suukaree kafeem nga daagu dem jox ko koo xamante ni dafa daaj ji saaku suukaram teg moom dina suukar ba koor gi jeex muy continuer di suukar loolu warul loolu mooy yàq bu gi gan kon nañuy xool ndimbal li ñi ko yeyoo ñu ko ñu leen koy jox kon bu weer koor wi jeexee loolu yëpp war nañ ci retire ay leçons mooy dimbalante entre jullit ñi loolu mooy côté ndimbalante ci socialement wala leçon yi nga xamante ni mën nañ koo jëlee ci koor ci wàllu social ci wàllu dëkkin ci wàllu nekkin lépp di rafet su ñu ñëwee ci wàllu santé dafa doy rekk bu nu waxee xadis bi yonent bi waa alayhi salaatu wasalaam suumu tasixu wóor leen wér leen soo leen wooree rek wér loolu day wax lépp day firi lépp kon wor tamit amna lo xamanteni daf koy def ci yaram dara mënu ko remplacer parce que dafa am cellule yo xamanteni toujours dañuy dé pour yenen cellule juddu té fekk estomac bi mu ngi rempli lolu do mëna am kon fokk koor am lolu sax science daf ko deugal legi ba ñi nga xamanteni duñuy julit sax des fois dañuy diklé lolu ci ay ay ñooy xam ni ay docteur leen seen xam-xam màcc ci wàllu woowu di di dégle loolu parce que ay moment yoo xamante ne nit ki day toog xiif bu boobaa yaramam mu ngi liggéey lu bari loo xamante ne xamu ko du ba léegi tamit koor am na lu muy def ci yaram loo xamante ni wàññi taux cholestérol loolu rek parce que jigéen ñu bëri sama sama xam naa ni man yàlla dimbali na ma ci loolu waaye ñu bëri bëri ma ñu leen di gis fii ci ñu ñuy dëkkal ñu ñuy gis boo ubbee internet bi ñuy joxe ay régime nangam ak nangam ci ñenn ñoo xamante ni yàlla nattoo leen obésité wala yàlla nattoo leen yenn yaram yi te xam ngeen ni yenn yaram yi tam feebar rek la. surtout ci jamono ji nga xamante ni wër dafa jafe su ko defee ñu ngi xool bépp bépp yoon boo xamante ni dañ fay jaar pour mun a wàññeeku pour mën a dindi seen graisse koor moo ci gën a gaaw te loolu scientifique scientifique yi saxal nañ ko science saxal na ko aussi su ko defee nag kon loolu lépp ñu mën ci bàyyi xel su ko defee ñuy gën di gën di woor di gën a góorlu surtout mbokk jigéen yi tamitam man xaj na ñoom laa gën a bëgg gën a yéene yiw gën a bëgg ñu gën a góorlu parce que ñu ci bëri ci ñoom wax dëgg fa yàlla dañoo sàggane koor lool sàggane nañ koor lool am na ñoo xamante ni weeru koor wi du ñu wóor ñenn ñi nga xamante ni tamit góorgóorlu nañ bor boo woor buñ génnee weeru koor bi aussi lañ fa amee woon ci ay bor danaan duma fay loon toog yàlla et c'est très dangereux yàlla boo ko yoreelee bor kañ fay ko ndax nit boo ko yorelee bor da nga koy fay foo jaar fay ko wala doo am jàmm kon kañ yàlla boo ko yoreelee bor moo gën a yey ci nga fay ko kon foofu mbokk julli ni nañ ci bàyyi xel te gën a fonkaat koor bu baax a baax a baax a baax des fois sax nekk ci ndogu yeeg nekk ci nangam ak nangam ñoom ci la ñuy gën a vocaliser wu ci koor gi te bu boobaa nag xaj na toujours dama koy wax ñuy wax ni féministe féministe laa waaye man duma féministe parce que góor jaaxaan nga nekk suba ba ngoon ci service am dem marché ñëw nekk ci ndogu li nekk ci xëdd li nekk ci jus yi nekk ci fruits yi nekk ci désert yi nekk ci bisaab bi nekk ci euh, nangam ak nangam nangam ba taloo jaamu yàlla ci koor taloo julli ci waxtu taloo naafi la parce que da ngay da ngay jeexal da ngay sonn ci service su keneen wax dëgg fa yàlla service yu yàlla moo gën a yay xaj na tamit lépp nag ci say bi bokk ci jonge gi la bokk ci waaye na ñuy góor góorgóorlu tamitam ñuy profité ci weeru koor boobu su ko defee ñuy def li nga xamante ni moom la euh, yàlla digle subhanahu wa taala su ko defee ñuy am li góor ñi di am xaj na sax ba léegi sax loolu tamit jaamu yàlla la nekk ci waañ wi nekk ci njaboot gi toppatoo bi loolu jaamu yàlla la mais dafa am jaamu yàlla goo xamante ne dara du ko wecci mooy joxe farata yi ci bi mu waree ñuy góor góorlu tamit ci naafila yi parce que nekk ci waañ beeg loolu lépp loolu ay yiw la yoo xamante ni yàlla dinañu ko defal mais dafa am loo xam ne waruñu échape c'est essentiel waruñu échappé nañ koy def na ñuy fexe di julli ci waxtu bi nekk ci waxtu bi ba tisbaar mënoo julli tàkkusaan mënoo julli da nga koy dajale boole ko timis bu timisee sonn nga naa fi laa doo ko tal donte sax du farata loolu yëpp nañ ci profité ñu ci profité def ko booleeg li nga xamante ni moo ñu war ci waañ wi ak kër gi loolu day tombe xaddis ba li gaa yi ñëwoon di jàmbat yonent bi ni ko zahaba ahlu dusuuri bil ujur ah ñi riche de ñooñu ëpp chance yonent bi ni leen comment nu mu leen ëppee chance ñu ni ñoom dañuy julli di woor di saraxe ñu nit dañuy def loolu waaye ñoom dañoo am alal joo xamante ni dañ koy joxe ay sarax ak di génne azaka te ñun mënuñu génne azaka di saraxe tamitam li les ci seen alal kon ñooñu ñoom ñooñu ëpp chance ñooñuy ëpp fay kon suñu wooree comme góor ñi def li ñuy def yépp ci taxawaay yeeg ci la yeeg ci istixfaar yeeg yépp ba pare gën a féete wowaañ wa kon loolu daraja zaida la maanaam bu nis lay doon ci ñun foofu tam nañ ci bàyyi xel kon woor tam day indi wér gu yaram ci nit ci dàq cholestérol wàññi taux glycémie suukar bi nga xamante ni moo nekk ci nit cor daf koy wàññi daf koy régulariser ba mu yem su ko defee day day day day day yem du ëpp du manqué loolu tamit euh, docteur yi wala ñi nga xamante ni ñoo féete ci côté science bi tamit avéré nañ ko euh, lu bëri bëri ak moo tax ñu bëri seetlu nañ ba demb rek sama ben xarit tangi nan mom sam man sama yaram bi dafa saytane wala biñ woré ba légui jiko don dal yépp ya yu sew sew moo nangam ak nangam yu bari dafa deñ kon lo ma ko day lolu day firi ni yonenté bi mo ni ngeen eh, kon nañ gor lu bu baax mu dess ñu gattal mu dess troisième aspect bi ñu bëggona wax côté côté yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun lool rek doy na fi aaya bi daanoo la laallakum tattaquun yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm yàlla farataal nañ ci yéen koor comme nin ko farataale ci ñu jëkk ñi ndax lan mu ni laallakum tattaquun ndax amaana bu koor gi jeexee ngeen ragal yàlla kon koor dafa am lu muy def ci ruu ruu biy wóor ak bi dul wóor mënuñu yam koor day yar ruu koor day tàggat ruu mu nangu dénkaane suñuy boroom mu nangu digle suñu boroom ndax bu dul woon ak woor su dul woon ak koor lu bari am na loo xamante ni ruu du ko man koor mooy tàggat ruu mooy yar ruu ndax bi yàlla ne digal naa leen wala waral naa ci yéen koor muy xiif bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi lu baree bari loo xamante ni danga ko doon def mu araamal la ba ci sa soxna ci bëccëgu weeru koor ak lu baree bari loo xamante ni daganoon na la mu bàyyi loola loolu lépp kon loolu kenn mënu ko lu dul yàlla subhaanahu wa te ruu mu ngi jéem a adopté ci loolu di nangul subhanahu wa taala kon loolu rek njariñ la boo xamante ni amul dara donte sax yàlla diglu diggu digguñu ci woon fayuk aljana loolu rek dafa jar woor borom bi la bind borom bi la tàggat borom bi nga bi la may wér borom bi la may xéewal borom bi la defal lépp borom bi la may njaboot borom bi la sàmm borom bi la defal lépp ni la wooral nga woor loolu rek dafa doy donte amut woon sax récompense bi nga xamante ni moom la ñu ci digg ak li muy rëy rëy yépp kon foofu ruu day topp ndigle suñu borom subhanahu wa taala su ko defee ruu googu su paree ci koor dafa dafay nekk ruu gu set dafay nekk ruu goo xamante ni day nangu li suñu borom santaane parce que defe naa ki la bàyyiloo lekk bàyyiloo la naan defe naa leneen lum la bàyyiloo war nga koo bàyyi lekk ak naan képp ku la ko bàyyiloo nga bàyyi ko leneen lum la bàyyiloo war nga ko bàyyi kon ñu war cee jàngee ni tere subhanahu wa taala du lu diis lu ñu man la lépp mun nañ ko lépp lum nu bàyyi leen mun nañ ko bàyyi mais lépp lum nu def leen mun ngeen mun nañ ko def kon su ko defee foofu tam ñu bàyyiwaat ci xel te lépp xam ni lépp loo xamante ni doon na araam ci bëccëgu shahru ramadan ci loo xamante ni ci jëw la wékku ci tooñ la wékku lépp loo xamante ne araamoon na ci bëccëg boobu lu mooy lekk ak naan yeneen yi ci aju loolu day continuer di araam bu weer wi jeexee ndax loolu yooyu ñooy setal sa ruu yooyu ñooy setal sa parce que nit a ngi def dara yow ngay waaru ni kii lu mën def lii kii ñeme na yàlla kii nangam nangam te dañuy fàtte la shaa'ir ba waxoon ni mu mën man yahun yashalul hawaanu alayhi maa li jurxin li mayitin ilaamu képp koo xamante ni da nga tàmm di def caaxaan di def lu ñaaw day mel ni da da ngay dem ba dara dootu la saf nee na exemple fekkal ab néew bu toog nga di ko dompet du ko yëkk léegi su ko defee tere borom bi subhanahu wa taala fekk ñoo koy bàyyi suñuy ruu di set fekk ñoo ngi koy bàyyi suñuy ruu di yëkk ni moom mu ngi dund waaye fekk ñoo ngi koy def ñu ngi yëg ni ñun dundatuñu parce que loolu mooy dee dëggantaan la waxkat ba waxoon rek ni laysa man mata fassaraha bi mayitin innamal mayitu mayitul ahya nit nga dund fek dafa de sa ruwa ngi tilim sa ruwa ngi di sa ruwa ngi fetterlu digal na lako lolu moy deug deug deug deug de. euh su ko defé su wéru koor bi passé ñu jëlé ci yoyu yépp défarat suñu to topat suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defee taqwallaa googu yàlla ñu dig ni soo leen wooree di ngeen am taqwallaa ñu man koo am kon taqwallaa mënuñu ko am suñu wooree nu ñu neex taqwallaa mënuñu koo am fekk bàyyiwuñu lépp loo xamante ni yàlla tere na ko ci bëccëgu weeru koor buñ koy continuer def après woor gi tax ko taqwallaahu googu duñ ko def moo tax des fois peut-être am na question yoo xamante ni day poser boppam di wax ni nit a ngi woor pourtant ginnaaw koor gi wala ci biir koor gi mu ngi def lu araam ci biir koor gi wala ci ginnaaw koor gi mu ngi mooy yàlla ci biir koor gi wala ci gannaaw koor gi mu ngi def loo xamante ni charia bëggu ko euh, lu mbaax sax bëggu ko wala aada ju rafet sax bëggu ko loolu su ko defee day na mu woore la parce que woor dafa am ay principe yoo xamante ni dafa leer yàlla teg ko ci alxuraan yonent bi ñëw gën koo dëggal ci sunna loolu lepp suñ ko topé dinañu am taqwallah mais lepp loo xamantene yalla daf koy diglé sori nga ko yalla diko téré tere nga ca ba paré ni danga wor loolu du wor loolu du wor kon wor dafa am ay principe yo xamantene mom lañ tek képp ko xamantene da danga wor sa woro lek woro nanam woro def lepp loo xamante day dog deug la waaye tam war ngaa sori soril say cieur lepp loo xamante ni dañ ko sip lepp loo xamante ni dañ ko sip war nga ko soril say ay cieur ci wax sor wax loo xamante ni wax ju amul njariñ la surtout wax jo xamante ni la la ñu wax lu la de dedet waye wax même lu la wóor mais loo xamante ni sa yon neeku ci ab jëw la loolu sax dañ koy téré ci shahru ramadan bu dul chahru ramadan it dañ koy tere waaye ala rawatina tax li chahru ramadan lahu xurma place bi nga xamante ni fii boo fi moyee yàlla xaj na bakkaar ba lay yàlla di bindal bokk ak boo demoon ba toog ca kaaba ga mooy yàlla foofu moo gën a garaaw moo tax dafa am loo lu nekk dafa am ormaam kon bakkaar ba day tol day day ni ormay bakkaar boobu wala ormay place boobu wala ormay waxtu woowu su ko defee tamitam euh, su ko def su ko defee tamit tam jëf ju baax jang cay def tamit day tollook waxtu parce que ku julli fii ñaari ràkk sa kër bokkul ak boo jullee ci kaaba ga ñaari waxtu ñaari ràkka kon foofa tamit fay ga day gën rëy su ko defee weeru shahru ramadaan a ngi nii weeru koor baa ngi nii mën nañ ci profité bu baax a baax a baax a baax mën nañ ci am ay bonus yu rëy a rëy waaye mën nañ ci am ay martaba yu rëy ak darajaat yoo xamante ni fa yu baax yee yeggoon mën nañ fa yegg suñu ci profito suñu profito ci woor suñ ci profito ci eh, xiyaam mooy ay naafila suñ ci profito ci zakat suñ ci profito ci saraxe suñ ci profito di wax lu baax suñ ci profito di tere lu bon loolu lépp yàlla mën nañu cee defal xéewal ba yeggalé ñu fo xamanteni ay jaamam yamu tan ñu bax ñe yeggon nañ fofu assalamu alaykum wa rahmatullah la ilaha la ilaha la ilaha fardun samadun rabbana